merci de rester fidèle connecté sur le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaanee bu baax a baax ci àndin beeg wétaliku gi di amaat mbégte benn yoon ci àndoog yéen si benn jotaayu fas yéene waxtaanee lamb ji fi xewoon ni ki démb évidemment mu doon dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo yàlla def. ndam li dem fi li nga xam ne ni mooy parcelle ñuy am jotaay ak doomu parcelle boo xam ne mën naa ne doomu parcelle la ambassadeur la influenceur la dootuñu ko présenté ci réew mi mais aussi ñëpp xam taxawaayam ci li nga xam ne ni mooy la culture sénégalaise mais aussi taxawaayam ci wetu Modou Lo bañ ko koy dàkkantale muy ñaa xereñ loo moom la seen bés di am ak jotaay may am mbégte bu amul àpp si jotaay bi ñaa pour commencer aussi dama lay gërëm bu baax a baax vraiment si jotaay bi di la xamal ni mbégte lay am benn yoon ci am ak yow jotaay ndax rédaction seen bés na moon nañ la gëj nañoo am ak yow jotaay te yow ci kër gi nga bokk ñaa yee maa ngi lay fay congaan di fay suma gars yi euh, suma mbokk taalibe yi waa kër Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu xam ne mm-hmm. ñoo yor seen bës samay waay lañ samay xarit lañ mm-hmm. di kontaan ci euh, téléspectateurs yi seetaan ñuy déglu ak mes amis loobu mes amis de snap ak képp kuy supporteru Modou Xarañ Lo ak képp kuy faramaale maa ngi lay bëggee mais copain ni nga sañsee tey nii dafa mel ni yaa ngi feete si victoire waaw li ma victoire non man nag lu lu ma lu ma miin laay feete nii nag ndax victoire du ma ko miin damaa yàgg dégg daale lii nag su ma benn euh, moo ma ko ñëwal bi nekk fële euh, mhm. ko victoire bi daal yi nag su ma benn yaay nag moo ma ko jëndal nag fële ca États-Unis Louis Vuitton lu seer la nag ndeysaan kon moom li turam na ma ci def code ba am def ci code noonu rek alors Ménia c'est vrai que yaa ngi woon extérieur man bi ma la gisee ci combat bi vraiment ak motivation bi nga ci amoon taxawaay bi nga ci amoon sur le plan communication et dama ni engagé waat nga ci côté Modou taxawaay bi nga am ci combat bi lan moo ko waral nga man su ma Paris on a fait un mois deux jours doon def promotion album euh, I Wanna Be Free bi mhm. mais mun moon ñàkk ñëw ci Modou xarañ loolu ndax suma xarit la on a grandi ensemble mu nekk ñu bokk benn koñ ak benn quartier ba bekkaay mbay tuddee ma ñaabu xarañ loo kooku bu xewlee fa mu dagg sama billet ñëw couvrir événement d'accord kon combat bokk na ci li gën a tax nga ñëw Sénégal. même jour open press bi y a politicien qui m'a payé beaucoup de millions pour couverture médiatique ma ne ko mënuma dem fenn tey open press bi laay couvrir. d'accord jour bi ñu koy def noonu mercredi bi. Mm-hmm. leneen lu marqué ñu bari le jour J gis naa la nga ñëw. Modou génn salle bi mu nekkoon ñëw nuyu la nga encouragé ko. bu baax a baax ci combat bi ñu ne ma Modou moo ngi biir néegu mm. dugal sama yaram ci néegu cumbukaayam ma ne ko Modou génnal ñu def benn vidéo ci laa koy encouragé ne ko Modou yàlla na yàlla defal jàmm ci barke Cheikhou Tidiane. Mm. ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima. te mm. ñaan googu yaakaar naa ne nangu na. d'accord. alors lu jiitu combat bi xam nga ni bari na ay pression médiatique tension médiatique bu ñu doon dund li bari woon na combat bi dina am boo xamee sa mbër xam nga mbër mbër gu neex a yóbbu làmb la boo xamee sa mbër xam ki nga àndal xam kii nga àndal ban dayoo la am kooku doo am pression ndax làmb du weesu Modou Lo Balla Gaye hmm. làmb du weesu Modou Lo Eumeu Sène làmb du weesu Modou Lo Bombardier Modou dégg gis na am na bés bu ne am na victoire bu ne am na ndam lu ne dégg na daale gu ne ko xam ne ba muy dégg borom drapeau yi ba dégg roi des arènes kon kooku bés mënatu ko weesu te gars yi dinañ booy war ba war ñay mënatoo war lu lay yéem ci àddina mhm. Modou champion la démb boo xoolee ni Modou ñëwee ci làmb ji Modou uudi lekkul xaalisam ah uudi lekkul xaalis Modou Lo mooy maanaam Modou ëwluwul amul benn téere bu ne ci yaram Modou Lo bi démb lim ngémbo boo xoolee boo calculé matul 5000 francs lépp la zone noire mooy suñu couleur ASC moom la laal démb mu sangoo sa ndox bu xonk boo xoolee blouson wu dadoot bi Modou bàkkoo ba Modou tuusee ba Modou paree làmb ji kolu blouson bi taachul mu la wan ne Modou sangul sa galaaj bu am taache ndoxu samsam la doon laal ak ndox gu taal. Mhm. alors mais noo ko jàngatee c'est vrai que ñëpp dañ jàppoon ni par rapport ak coow li évidemment côté Pikine la ëpp woon ñëpp dañ gisoon ñeneen ñoo leen gënoon a pare beneen innovation ci làmb ji mooy maanaam mystique su ma benn xarit ñu naan ko sëñ Axma Mbàkke booy juróom bu seetlu ba dan Cheikh Mourou nee na ñaanal mbëru làmb gu amul fit ñaanal fa sa course gu mënta daw moo gën a yomb ñaanal mbëru làmb gu amul fit hmm. mystique bi c'est bien beau mais du un motul sax cinq pour ci làmb ndax moo dem indiwul gàllaaj bi tax ñu naan gàllaaj la cumbukaay moodu butéel yi bariwul mu takkul benn téere mu nee naa la moodu uude lekkul xaalisam ëwluwul deful dara te moo daan làmb ji hmm. na gars yi liggéey liggéey mooy gañe lool mbër liggéey ak mën bëre ak am fit ak ak nawloo supporters yi ak respecter sa adversaire loolu mooy loolu mooy gañuloo mbër mhm. nee nañ combat royal woon c'est vrai que ñu bari ñu ngi doon jàpp ni la pour làmb ji ndax Eumeu Sène dafa jël risque bëri Modou pour Modou am droit des arènes mu mhm. tamit fallait mu jël risque pour bëri Ama Baldé pour Ama Baldé boo ko yàlla may ndam mu doonoon droit risque la rek mais risque bi nag ñun dafa mel ni daal ndombal tànk génnagul daal tànk Modou

lépp loo def da nga ciy am fulla seen bës bi ba ngeen ñàkkoon fayda ci ay euh, ay ay ay ngeen di dem ak yooyu noonu ci ay kër ngeen dem di couvrir ay événement ak yooyu noonu. Hmm. noonu la demee rek. d'accord très bien bi yàlla defee ñaari mbër yi jàkkaarloo ñaar hmm. ndax tamit. jotoon nga am confiance bi nga amoon man de barki alxuraanu karim ak yàlla bu ma fanaan xamoon naa ni Modou Lo mi du ma gàcceel te boo boo xoolee ko tegoon je veux dire mais mais ci xam ci sama mbër la xam nga du ma ànd cuune Wally Seck mi tey bu ma leeroon nii ñi ko ñi ko tëqale nii moom ñoo ma maase ko du ak moom man du ma ànd ak cuuna du ma ak du man vainqueur la àndal kuy dem rek ba ba gisee du ma ak kuy la taxaw da dem ne ko sommet ak yow mënoo ko nga dem ma dem man fa laa ne combat bi xeex la ñu bari ñu ngi doon wax ni Ama Baldé moo gën a une semaine avant nee naa leen combat bi damay ragal sax mu yàqu ndax Modou Lo dina ko dóor a dóor a dóor ba am booy bu dugg ci làmb ji wala waa Pikine wàcc làmb man loolu laa jàpp nga loolu yow xeex alxuraanu karim loolu laa gisoon xam naa Modou Lo mbëru tànk la xoolal mot bi ko amaa mot bu doon bu doon cuune la day daanu mm-hmm. Eumeu Sène la lam def ci tànk Modou Lo bi te mënut a daaneel Modou Lo kooku moo lay woon ni moom champion la mm-hmm. doomu yaa njóoba ji tamit nag borom inte Seydi Mariama borom une devine deux xam naa ko nag. dafa am loo xam ne tamit polémique la c' que ñëpp dañu naan ñaa dafa mel ni dafa fàttali ni influenceur la kaddu askan wi lay doxee léegi. kaddu yi nga wax kaddu askan bi ak kaddu askan bi man sama gox laay njëkk a balaa askan bi askan bi seen bopp leen ah. li ma leen wan moo leen intéressé moo tax ñu may seetaan amul kenn ku ma ci mën a envoyé demande la ajusté ma ñoom ñoo ma ajusté ndax mais ñaagul wax loolu. askan kan lañ gëm. non mais yow gëm la moo tax xëy na ñu lay suivre ba dara doonul. dara li may bu ma wàccoon karo yi léegi duñ ma suivre tey. mais da war a bàyyi xel sa. bàyyi xel man a bàyyi xel muy Modou Xarañ Lo bi nga xam ne mooy suma ma di ma ñor askan bi après la man second time laa leen waa kër ñoom laay représenté ba noppi doog a représenté askan bi d'accord polémique bi ak 22 coups yi nga xam ne ñu ngi koy challenge nga naan ay 22 coups lañ ko dóor. damaa wàññi rek damaa wàññi bu doon 22 coups ak boy supporter bi wàññi dem rek loolu am naa droit ñoom waa Pikine bu ñu daanoon ñooñu gën a ñaaw làmmiñ danañ wax loo xam ne ñun du ma génnati man pare woon naa pour laal sama billet avion bu ñu daanoon wallahi lazim ndax xam naa ne gàcce googu noonu du ko fekk fii Dakar Ndiaye. Hmm. wallahi lazim damaa ragal gàcce Pikine dama fa am ay xarit am fa ñoom Del Piro am fa ñoom grand grand Ndiagoro. justement waaw am fay nit. ay ñoom Papa Lam Sène. am fa ay xarit yu baax. waay noonu laa ko amee fépp ci àdduna. mais est-ce que kon kàddu yooyu nga xam ne naqari nañu bari ci jeunesse Pikine bi mënul yàq en quelque sorte sa xaritoo ak ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ban kàddu ban kàddu moo naqari 22 coups yi da leen métti ñaa xam mais loolu li ma dugal loolu moom la àdduna yëpp dugal yow dugal nga ko dama la ma xel ñëpp d' accord alors mais foogoon ni li doon nekk sa taxawaay mooy mhm. après nga indi kàddu motivation. encouragé Ama encouragé Ama félicité Modou Lo ci façon bu gën a rafet benn xar ma yàlla Ama suma xarit la Ifra suma xarit la Del Piro suma xarit la Metsob bi nga xam ne ñoo bokk benn faramaaren suma xarit la. bu amaa daanoon tamit damay ñëw ba ci mën amaa félicitation te bu mhm. amaa daanoon tamit maa ma sob ñaan dem bàlle ji Wally Seck rek wala ma ànd ak Ifra wala ma ànd ak Del Piero aw ma xar ma yàlla kenn amaa xale bu ndaw la am na avenir l'avenir est devant lui mhm. mën na am yeneen yi victoire mën champion la gaynde la champion la bés defet nag bu ñëwee cuune ngay doon mais amaa du cuune mbër la kaamil la mhm. mbër kaamil moo tax mu mbër mbërik d'accord alors maintenant combat bi ñu bari nee nañu dafa mel ni da nga écarté woon en quelque sorte ku dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay delluwaat fa nga jóge woon. écarté wu mooy lan maanaam moo tax nga ñëwaat moo tax nga ñëwaat si Modou Lo parce que. Modou Lo a gis daawul la gis ni ci mel nii je veux dire. loo xam ne fa ngay toll am loo xam ne man contrat laay liggéey dama am des partenaires am ay convention yu ma signé ak ay société di liggéey ak samay partenaires loolu ma ciy concentré mais bu Modou Lo taxawee combat bi taxoon combat def ñaaw. mais xam nga Modou dafa ne ko def Modou dafa ci yoonam ma ne Modou bu ma gëmul woon du ma ñëw ba cumbukaayam di ko jël à 13h combat loolu maa ngi koy doog am ci Modou Lo dugg ba biir cumbukaayam jël ko def ko vidéo ñaanal ko mhm. gars man xam nga yow yaay gars yi rek bul ne ma gars yi neel yow rek sa analyse yow yaay mhm. gars yi non non <laughs> xarit la man mosoo gis ma supporté beneen mbër bu dul Modou Lo mhm. Balla Gaye suma waay la Ah, euh, Ama Baldé suma xarit la mais bu dee mbër benn mbër laay topp muy Modou Xarañ Lo mhm. bu dee woykat benn woykat laay topp muy Wally Ballago Seck mais loolu yàqaluma sama relation ak keneen gis nga Bercy bi couvrir naa ko nii récemment damay naa mhm. Frédéric Douglas Viviane bu joué dama koy dama koy couvrir Assane Ndiaye laa bu mujjee couvrir ba ki dee mu Ndiaye bara mun ni ànd sama jigéen Clara. Mhm. mu organisé le 8 le le 8 décembre. Mhm. foofu ca méridien. d'accord waaw man noonu laay liggéey rek man képp ku ma amal jàmm ba ma soxlaa. te boo ma soxlaa ma xool ñu xool suñu plateforme mën nañu cee liggéey damay signé contrat ñu liggéey contrat bu leer. ñu mhm. liggéey nga fay ma ma dem. est-ce que du combat bi ak coow li ma amoon coow combat buzz la woon. par exemple moo tax nga tax ci Modou Lo ba nag moom ay drapeau la doon jël boobu mbapat la boobu noir et blanc la woon ba léegi na ci léegi la ne ci en couleur bi. te mhm. bu dee buzz man gars yi dañu maa bu buzz fi ñuy dem laay dem de li ñu am laa am fi ñuy dem laay dem amuñu loolu bi. visa yi ci États-Unis la yem am naa ko. Mhm. noos yamul ci ndekki añ ak reer te dama koy def ak tëdd 5 étoiles voyager business class sangu loolu dong la de li ponk li def yëpp maa koy def de. ñaa xarañ loo moom la seen bés di am ak jotaay ñaa xarañ dootuñu ko présenté ci réew mi alors mais ñaa ñu ngi wax ni aussi booy parcelles yi dañ la mere woon aussi ah, na wala amul woon aussi dañ la mere woon donc pour suudeewu ak ñoom moo tax nga ñëw tax ci combat bi lépp quoi suude ak di suudewu man xam nga laa bëgg ma suude moom suñu waa kër àdduna ñëpp bu ma ñëpp mel ne sama yaay mereewu ma rek alhamdulilah man suma yaay dong laa mënta jàmmaar loolu mais keneen ci média laay waxee. Hmm. sunu waa kër rek laa laa bëgg a suudeel mais du askan beeg du waa koñ beeg du nangam ak nangam fi ma nekk askan bi yóbbuñu ma fa sama waa kër ma fa yóbbu travail de maman repas de fiston bénédiction de Dieu loolooy sama concept sa jour ma wax la ko mais nangu koo dégg askan bi ku ñu gërëm te bu subaa la saaga mbaa ñu xëy tuumaal la sa waa kër dong ñu la mënta ñu la mënta gërëm te bu subaa ñu xalab la man foofu laa ne. Hmm. d'accord. ndax après combat bi jot nga am échange ak ki nga xam ni mooy Modou Lo. jot ngeen gisee xaaruma ci moom avant combat wala après combat kooku suma frère la. Mhm. léegi rek ñu naan ma mu ngi waaj a ñëw pour remercier waa euh, waa Gambie. Mhm. Euh, population gambienne bi la war a remercier foofu ci Unité 24 fa lañ nekk balaa ñoo ñibbi sax année Modou day dem saafante ak ñoom dañ mhm. ma léegi bu Modou di ñëw fa dañ ma woo man garaaw suma xarit la mhm. koo xam ne boo ko soxlaa woo ko jot ko man rek kooku jarul ñuy wut ay journée de rencontre wala ay euh, rendez-vous mhm. suma xarit la daal man noonu laay liggéey ak samay nit d' accord xaaraat beneen combat contre évidemment ak waa Pikine combat wu Boy Niang bi lan nga xalaat ci loolu bii demi final la boobu boobay final bi bi dañ demi final xam nga de poule bi jaar nañu ko ci Amacène bii demi final la final bi contre sama doomu la Boy Niang moom it di mbaru gu

alors kaddu yi bu ma la tooloo teeloon a gis duma def ci yow 1000 francs par exemple. yàlla def na finalement xam nga ku ak ku nekk ak ku nekk ak fi ngay gisee ak ku nekk ak ak na ngay. jaayee sa événement ak ku ne na ngay na ngay na ngay maanaam mhm. motiv motiver say supporters la rek mhm. xam nga Modou Lo ndeysaan boo xoolee làmb dafa mel ku ci mersa ndax wax ji dafa bëri woon torop côté staffu ama euh, dañoo bëri woon wax torop macha allah mhm. lu ne ñu dugg ci lu ne ñu wax ci man gisoo mbool communiqué ma ci làmb yi mos ma ci wax wax ñagas pour ma wax ci sa problème la d'accord man ci laa focus rek di ko wane di wane image di jaay image démb gis nga nit ñi escorté di di tamit remercier

premier premier combat ak euh, Balla Gaye mhm. ca laa ñàkk am pression ba tey jii nii. d'accord mhm. alors ma dégg nii am na ay menaces yoo xam ne yaa ngi koy jot ci après combat bi moo xam xëy na façon bi nga doon communiquer ak yu demee noonu. juste pour nga wax ma ci rek lu leer s'il vous euh, plaît. xam nga man menace man duma ko ñuy menacer man duma man duma gone kenn ku ànd ak état ànd ak ànd ak kilifa ànd ak président la république ànd ak président CEDEAO ECOWAS dem Nations Unies. dem CEDEAO am na xalis général dem ngénte dem dëj xam bànneex xam naqar ànd ak noire fekke fekke mbër mu daanu fekke mbër mu muñ daan mhm. kooku pression muntu laa jaaxal ci àdduna man leen rek ma mën a dàq muy taw ndax bañ a tooy mhm. dara mënumaa dàq taw rek ma mën a dàq ndax bañ a tooy mhm.

bàyyi bëre. Modou Lo même bu dee day bàyyi bëre tamit lekk nañu avance yoo xam ne faaw mu bëri ko. Hmm. bëri na dem demi final bi faaw mu finaalu balaa dara di xew. jàpp nga ni am na euh, choix jamono ji continuer ci làmb yow lecture bi nga def. ci moom Modou li waaye li hmm. tax nit ki di bëri wala li tax nit ki di li tax nit ki di liggéeyam yàlla defal na hmm. ku yor ñetti immeuble am ko ci banlieue am ko ci banlieue am ko fële na euh, nga di waaye am yoof am ko parcelle am ko fële mu dëkk ñu ko ñu di waaye. la Cruz la mhm. yor say 4x4 yor V8 yor ay garde rapproché yor ay macron wu macron wu laissé passé laal piscine loolu nit ku ne booy liggéey da ngay bëgg réussir. très bien. Ah. loolu yëpp yàlla da yàlla yàlla kii la kii la ko jagleel na ko. d' accord bu ko neexee bàyyi. Ñaaxarañ Faramareen projet disque door bi ak Wally Seck fu ngeen ci toll. disque door bi nag vous avez beaucoup parlé ci disque d'or bi te disque d'or bi demeewul noonu. Hmm. tubaab melomaan lay jaay. tey man jënd naa fa keroog cinquante CD pour maa ko compter mais loolu bi benn lay mentionné ni ñaaxal ñu jënd na benn du bind ñaaxal ñu jënd na cinquante boo jëndoon mille CD yow benn personne dañuy mentionné benn lañ lay bindal tubaab mélomaan day bëgg mu am cinquante mille écouteurs pour nga am disque d'or ok yi nag dañoo jàpp ni waaye day dagg biyam pour dem France jëli disque d'or de demeewul noonu disque d'or bu nga ko liggéey ci deux ans wala ni ko Omar di waxee naan ni ko ni mu tubaab bi dañ koy sàmm noonu tàkkusaan mu tàkkale koog tubaab bi demeewul noonu tubaab bi sàmmul seede yi mhm. dañuy xëy na ci bi tey on a sorti 22 seede wala 23 seede plateforme bi lépp nga war a commandé nga dem jëli ko à 24 wala 48 heures noonu lay demee loo xam ne da ngay ñëw dagg sa biir dem jëli ko. très bien foofu yaa ngi woon extérieur ak euh, Wally Seck. album international bi ndax man nga ñu wax un petit peu nan la ko vraiment. Euh, occidentaux yu jëlee wa signé contrat ba laa demoon foofu ca Bili man Wally ak Ndiaga ñoo ko signé woon mm. contrat bi ji man Wally la woon ak Ndiaga. Mm-hmm. ñu jógee fa. génne album bi génn na le 6 la génn ndeysaan avant album bi c'est le 6 la. Mhm. suñu grande sœur ñu naan ko moom yi maa ngi koy jàll yàlla yàlla suuf seddal euh, yàlla yàlla oyofal suuf ci kawam. yàlla na àjjana doon wàcc waayam. Mhm. mu ngi génn àdduna la 4 album bi génn le 6 album boobu léegi nag ñu ngi jaay plateforme digitale yi nga koy jaay fi mu a jaar rek moo ngi jaar. d'accord d'accord ñu ngi déglu tubaab mhm. moom du juum. très bien bu la xoolee ba la nga alors lan nga ñuy wax ci rencontre yi ngeen jot am ak tubaab yi nga xamee ni xëy na ay élomanes yi plateau là-bas def nañ ay France 24 on a fait RFI on a fait Africa 24 def nañ daal def nañ émission yu bëri ak plateau yu bëri daal RFI RFI def nañ ko ak France 24 ak TV5 Monde on a fait beaucoup de plateaux. li lay wan ni booy bi daal international ban appréciation la ci tubaab yi am ci sa xalaat wala ci li nga xam ne évidemment moom ngeen jot a échanger ñoom ñoo ko xam man appréciation nit ku ñuul da may laaj li ma xam rek ma toll na ci li ma xam ñoom seen appréciation ku ne na nga koy ku ne fi mu toll moo xamul boobu man daal fi ma toll sama xol seet na ci wàll yi mhm. ndax bu dara fi wàll jaar ak man rek wàccoon naa man mhm. benn Chine benn Dubaï ak 5 ans Angleterre kooku wàccoon naa ak man très bien waaw nit nag bu yàlla moom bu ba yóbbu ma màkk nit nag sama maam ne woon na nit bàyyi nag moom bu la pee wërsëg ëpp la ëpp la ëpp la xaalis te mënu laa dimbali bu mhm. ngeen dajee ci xew bu dee benn siis xëccoo ko moom waale man nawle la ma jàppee te nawloo na ma fu mu dem ci àdduna balaa dala ana ñaa xarañ loo te man woyu ma woyaanu ma yoruma instrument mm. bu ma demee day woy bu ma demul day woy mm-hmm. te lépp tamit ci ndimbalu soxnaam soxnaay dara jigéen ko nit ku baax koo xam ne mm. ñun rek ñun waali ay nitam a maîtriser rek kon yow nit ku baax nga soxnaay dara yàlla na ko yàlla defal jàmm mm-hmm. très ngi doon am mbégte si jotaa bi frère di la encouragé di la félicité di amaat beneen yoon mbégte si jotaay bi. jaajëf kontaan naa ci waa seen Senbuzz di ñaan yàlla di doon ay télé wi télé nag. amiin yaa rabbi incha allahu rabbi mhm. wan très bien ñaa xarañ ak seen buzz la woon beneen jotaay ak beneen invité sur la chaîne de l'État congaan nga baal ma nag balaa ma mhm. tëj émission bi nag foo mhm. ma ñaanal caatu fallaay bi ñu naan ko fulaadu fulaadu ñu naan ko sëll ndaw ñu naan ko Ama Baldé ne ko di courage Ama Baldé yamul fii làmb làmb yamul fii te champion nga giriyee nga am nga bés bu ne ci làmb ji daan nga fi ponkal bu ne daan nga mm. fi ku ne maanaam defaraatal ngemb li rek defaraat toogaay bi rek xoolaat staff bi nit ku baax nga mm-hmm. champion nga l'avenir est devant na yàlla may la yeneen ndam yal yàlla sàmm la yal na yàlla defal la baax nga doom mm. yaay Del Piero doom yaay Papa Lam Sène doom yaay Ifra le transitaire noble mm. doom yaay njagaoroo sunu manager mm-hmm. yal na yàlla defal la jàmm nit ku baax nga yal yàlla sàmm la waaw

xale la mën na am leneen ci làmb ndeysaan. d'accord yàlla na yàlla defal li mu bëgg ci làmb ji. très bien très ko bandum. Mhm. alors Ndiakhate Lo rédaction seen bés di la féliciter di féliciter Modou Lo ak waa Parcelles yëpp di a baax aussi wax nga ko fulaadu koo xam ni mu ngi koy jàppale Dal Péro Ifra Guissé le grand doyen. Mm-hmm. Ndiagourou aussi ak képp koo xam ne rek vraiment ñoom grand sayer bari na mm-hmm. waa Pikine say xarit ñoo xam ne vraiment ñu ngi jàppale. ki nga xam ne mooy Ama Baldé benn réew la rek. benn la waay maanaam benn bopp la kenn mën koo xaar ñaar. Mm-hmm. muy waa Fass muy waa Pikine muy waa Lansar euh, euh, cité sama xarit ñëpp benn la ndam mënul génn Sénégal c'est clair Youssou Ndour nee na jongante foo agré la rek du animosité du xuloo du xeex nañ ko teg ci na yam ci cadre sport ci cadre fair play ci cadre euh, jongante rek mm-hmm. dañ ko génne ci jongante ku ne nag mën ngaa nag teewal sa gox ku ne mën hmm. ngaa nag bokk fi nga nekk ku ne mën ngaa teewal ki nga nekkal sans sans tamit nga yàq nga xas sa adversaire wala nga saaka ko nayam ci mbalagante rek soo tey li ma dugal 22 kuy loolu ci mbalag la rek te waa Pikine bu ñu daanoon danañ wax mu loolu gën a ñaaw lii xam naa ne ñoo ma dàq mbalag ñoo ma dàq sànni xeer mbalagante la rek avant suma xarit la su ma koy téléphone léegi day jël boo ko del ñu ñëpp ñoo far c'est clair merci beaucoup ñaa jaajëf merci